yaakaar naa ni euh, ku ku ku ku jóg di nga gëstuwaat kan mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane waaw parce que ñun lii lañ gën a mën mooy di bëgg ci moom waaye xam gi dafa des waaw xam ngi dafa des waaye mbëggeel gi moom moom tabarkal waaye nag euh, Cheikh Tidiane dafa wax ne euh, mbëggeel mooy mooy bunt bi waaye doo amee mbëggeel ba noppi nag da ngay wuti xam-xam ah nee na inna al muhibba liman yuhibbu mahabba du wéree rek da ngay gëstu ko nga bëgg waaw kon nag war nañoo gën a gëstu dundu Cheikh te point bi mu doon waxtaanee tamit point bu am solo la muy tarbiya Cheikh Tidiane loolu dafa am solo parce que tarbiyaam moo jaaxal àdduna waaw tarbiyaam moo jaaxal àdduna te sëriñ bu nekk lii wane dara jaam du coow déedéet mooy résultat yi mu am ci taalibeem dégg fi may waxee sëriñ bu nekk ñoo ngi koy damay wax ne euh, tout tout disciple définit son maître te martaba sëriñ kenn du ko xamee ci ay waxat ay coowaat ay ñoo fi mën ak ñoo fi ëpp doole ak ñoo fi jiitoo ñoo pourcentage déedéet mooy résultat bi te résultat bi muy jikko résultat bi mooy sharia bu mokk waaw ndax xaqiqa mënta wér mukk te sharia mokkul waaw kon nag alhamdulilah euh, muy waxtaan wu am solo et puis dégg ngeen li imaam junj ñoom dañoo baax te yaru moo ngi junj dégg nga mu ne alaaji Mamadou دغونا تي اتو تاريخا بي ييب لول امام لي مديني نونو ني ني ديغ خمنان لي مو واخ دغونا تي اتو تاريخا تاريخا بي ييب اي ريفرنسام غيس نغي نيمي تودو تا سوكو نيهون مو واختان با اغال دو جيل ريفرنس تي كين محمد ديغل waye dem na ba mauritanie dem seydi mawlud fall seydi mohamed al hafez dem ba egypte seydi mohamed al hafez dem fi jeul mam cheikh al hadj malik nitu yàlla yi ñëw ci réew yëpp tudd na leen loolu junj la loolu li muy wane ni mooy ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay am na ci façon wax yoo xamante ni ak yenn discours yi mais dañuy affaiblir te duñu af te duñu affaiblir duñu faible mais duñu mën a réaliser dara wax naa ko gaa yi keroog man leen mbir mi dafa mel ni dañoo am ñaari junni bu ñu boole ñu mat fukki nit kenn daal ne xaar leen ma ñëw maa ngi ñu ko demal te ñëw mu dem wuti ciseau. jël ne ñaata la ñu ne fukki nit mu daal di jël dagg jël ñaari junni dagg ko fukki dagg-dagg ne ku nekk jëlal mais kenn du jariñu du kenn du jariñu ñaari junni ba ma ko laajee xale yi ni ñu ko war a def mu ne ma dañ koy jox ku ñu wóolu c'est important mu toj mu dem ci boutique bi toj ko su ko tojee def ko fukki 1000 francs mais ku nekk jël 1000 francs ñi bëgg def mu xam sax defal ñi bëgg a jënd yëngal jënd ñi bëgg a def lépp téeméer def lépp téeméer ñi bëgg a jënd sembeen jënd sembeen ñun loolu mooy suñu problème tey jii kenn ku ci nekk moo moo ngi wax rek di coow te lii nga xamante ne moom la alaaj moom doon wax moom la ñu war a wax mooy nit ñi xam kuy Cheikh Tidiane ba noppi xam lan mooy njëriñu tarixa bi ak tarixa bi lan lay def ci nit waaye yii ñuy wax nii kenn ku ci nekk di werante naan sama maam fi gën ak ñun ñoo fi gën silsilaat ñoo fi yor lii ak ñoo fi loolu du dara ñi fi mbir mi nekkatul loolu mbir mi jàng sayfi yu wala li mu salaat faatiha werante bi yëpp ci affaire de silsila la comme suñu bopp rek la ñuy werantee mais werante wuñu tarixa bi loolu loolu mooy affaire bi te loolu moom mooy signifié ni tarbiya bi baaxatul tarbiya bi des na mooy nit ñi xamatul luy tarixa bi fi mu ne nii affaire de group lañ ko def affaire de folklore man tijaan la man fii laa bokk man taalibe diw la du loolu alaaj moom wax na leen ko ba mu leer tarbiya bi mooy fexe ba sa xol fóotu ba mu set ba nga mën a jàkkaarloog xaqaay waaye tey jii ñu bëri ngi coow nekk ci Facebook beeg internet beeg ci dëkk bi di coow di wax te wallaahi charte waxuma la charte tariqa bi de charte salaat faatiha sax xamuñu ko soo leen ko laajoon xamuñu ko sartu jawr kamaal xamuñu ko charte tariqa bi ma ngo am na benn waaye ñëw foofu di coow di wax charte tariqa bi xaw ma mu ne vingt-neuf la xaw ma ca mbooloo ma la ko wax kii na ko sëñ bi déet bul dem ñun li ñu gis kat vingt-trois charte la te ko kilifa la yooyu baaxul la ñu war a lijjanti mooy waxtaan wii kon nag yàlla ñu yàlla boole dimbali boole ñu jàppale ñun doole ju ñu am fii ci Sénégal presque cinquante sept cinquante sept cinquante cinq cinquante sept pour cent doole jooju war naa am lu mu lu lu ko firndeel lu ko dëggal dégg li ma bëgg a ñun ci Afrique ay millions la ñu duma ko lim waaye ci monde bi trois cent million la ñu trois cent millions bi trois cent millions

kon alaaji jërëjëf yal na yàlla gën a yàggal sa taxawaay imaam yàlla na fi yàlla bàyyi doole sa wér doole sa sutura rafet na mu gën euh, mu gën mu gën a teel rafet gën a baax bi ci des tamit dama koy nit ku nekk sa kilifa yaa koy jox darajaam ak cërëm darajaam ak cërëm euh, nii jotaay bi mel noonu la war a mel su leneen amee tamit na ko ñeneen def mais baa ñi nga xamante ni suñu dee ñoo leen di jullee